mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam. nag li may wax sorewul nag li am ni ndogal yàlla la nag dëgg-dëgg. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk turam ak santam suma kaddu du sore Luma ma dem démb barki démb ak démb loolu lay waxaat Abdou Diatta ñun ëppale wuñu leen yàlla moo ñu ko jox mais ëppale wuñu kenn su dee lii mooy tax du ñu amaat yoon ñun jébal nañu ngeen ngeen jox ñu leen benn yoon waaye ñu leen benn yoon ngeen baal ma suma moo setul maa ngi leen di wax merci maa ngi leen di wax merci maa ngi leen di wax merci jërëjëf da ngay dal nga wax parce que ñoom dañu bëgg du dëgg li ngay wax dangay ngay muñ waaw bu dëj bi amee ba tey sonko mi ngi yoni ay nit fii surtout madame sonko mais jógewul fii benn bernayon, ak kii wax ah, nii léegi ñii ñëpp toog waa dimbi nañ ñëpp ñëw nañu famille bi mi ngi leen di gërëm famille baa ngi leen di gërëm ma gërëmaat ñi depuis Dakar ba ak ñun ñoo moom doom ji de ñun ñoo ko jur man may maamu ci mooy ayom mais dama ne ñun ëppalewu ñu leen dara ki abdallah jaata njaay ëppalewu ñu leen dara de dinaa jàpp suma xol ma gërëm leen maa ngi leen naan ngeen ngeen jox ma suma man daal maa ngi leen di ñaan ma yëpp fii waaw ni dañu war nangu ñun ñëpp ni Macky Sall a un problème avec la Casamance et les Casamancais te loolu bi Sénégal di Sénégal ba léegi musul am de Senghor à maintenant ben président musul traité Casamance yi ni ko Macky Sall di defee stigmatisation bi am ci jamono ji mu jëmele ko spécialement ci Casamance yi na nak ci képp ko am sant boo xamné consonance djola la stigmatisation bobu ëpp na té musul am dund crise de 1982 à maintenant mu am jamono joo xam crise bi métti woon na trop ñun ñu 24 heures te déggoo arme yi tàkk Abdou Diouf mi fi fekkone ba Ablaye Wade mi ci fekk touti amul kenn ko musse stigmatiser toute une région rawatina une ethnie

Si ne nii laa rek immédiatement li ciy tegu mooy rebelle nga dafa am yoo xam waratul tabou et je veux que kuy Casamance rek décomplexé parce que c'est pas parce que ñu ngi lay ne que da nga war a am complexe dafa jot ñu crever décomplexé parce que personne n'est plus sénégalais qu'un kazamassé. Amout. Vous croyez que tous ces jeunes-là, dans la force de l'âge, working, amfit, parce que Kazamassé et Ragal Andou, si tous ces jeunes-là étaient rebelles, vous croyez que nous avons armé beaucoup communauté Si 5% des kazamassés étaient rebelles, nous sommes Kon, si ça a été ce que ça a été jusqu'à présent, c'est que chacun d'entre vous ici se considère autant, sinon plus sénégalais, que Koudek Matam, Wala Mbake, Wala Saint-Louis, Wala Fénel. Personne ne peut nous exclure du Sénégal. Kon, Macky Sall, Tok jarul Djarul li. Le Sénégal de femmes, l'une ko xamé. Moi, l'une bokk ñun. Les société cousinage entre diola ak Serir dara mënu ko dindi ilaa yow mi ak ce discours nous est bon bi nga xamné ne mu mon porter mom jël ay nit solal len ko ñu dem ci télé yi diko wax il faut mu dañ may tous les Casamançais Bougnou Maki entraîné dans son piège. La Casamance n'a de problème avec aucune autre personne ou ethnie ou région du Sénégal. amul dem Sénégal te doo fekk ay Casamance yu fa dëkk intégré am fa kër te Casamance la la région la plus cosmopolite du Sénégal est Casamance. Cheikh Tidiane Dièye moi moo ma Casamance. Casamance juddoo Ziguinchor plus il est plus casamancé que moi-même. C'est ça la Casamance. xamuñu ethnie xamuñu religion Le ko de moi, Abdallah mii yàlla il est né catholique ay est né catholique lañu moom mu tuub nekk jullit est-ce que dafa andi fracture ci la gi des andiwul non non, à quoi parce que c'est ça la Casamance c'est la tolérance c'est l'acceptation de l'autre ak ne mel il faut pas que Macky Sall nous entraîne dans sa haine parce que c'est un homme fondamentalement haineux il gouverne par la haine ku àndul ak mom rek tu es bon pour nous liquider la nañu ak sénégalais yépp ak fu ñu parce que tay ce problème amé Dakar ñi ñew fanaan buntu kër Ousmane Sonko ne jaral na leen seen bakkan c'est pas des Casamance yéen wa Casamance gënu len ma bëgg man que ñeneen ñu dëkk Dakar Saint-Louis djourbel Kaolack fenen ak fenen ñooñu sax ñoo ma gën bëgg les Casamance donc il faut pas que Macky Sall ñu tombe dans son piège parce que il est prêt à brûler le pays à créer des guerres à faire ba nit ñi mu bolé len pour mom mu mën de ce chaos pour tok Sénégal nous n'avons de problème avec personne tous les sénégalais sont des frères et des sœurs entre eux Le problème la ñu am la Casamance a un sérieux problème avec Macky Sall te la cette haine nak lan depuis qu'il y a un homme politique qui s'appelle Ousmane Sonko qui est de la Casamance et qui lui pose problème loolu rek la waaye nag Ousmane Sonko Ousmane Sonko Sénégal yëpp leader yëpp ma àndal amu ci kenn ku ci dëkk Casamance ñii ñëpp lu dul Cheikh Tidiane Dièye waaye ma seedeel leen ni relation bi ñu am kenn ku ne ci ñoom pare na pour dem kaso à la place de Ousmane Sonko wala jël bal à la place de Sonko kon bu ñu tombé dans le piège de Macky Sall il faut qu'on mène le combat motax suñ yaay li trop te ni mu si le ñun parce que dañuy teud guddi yenn a am problème parce que nous avons une responsabilité ci jeune yépp dañuy teud yew am problème nelaw kon metti trop et c'est pourquoi ni président Khalifa Sall Mais metti na trop sa Dom daanu jot le corps mais may nous, parce que mbir mi il faut mu cette fois-ci Les avocats yi bi ils sont en train de prendre l'avion pour venir maître Djibi maître Diallo wax nañu une expertise nous sommes nañu expert ba may ñëw sommes ci mi qui va venir contre expertise parce que nous sommes noonu duñ leen bàyyi ñu gaawantu jël dem suul ñu ne dara il faut que nous ñaan ko les familles may ñu ko parce que c'est important pour que ëllëg dootuñu am sañ-sañu jël arme di tirer sur des jeunes C'est extrêmement important dégg naa ñëw nañu fii di def pression ci famille bi dem nañ ba ne am na benn chargeru arme bu ñu daaneeloon bi ñuy daw xale yi for ko ñu ne su ngeen leen joxul chargeur boobu ils vont pas remettre le corps mun naa leen waatal fii que le corps dinañ ci jot bu ñu defee expertise ba pare parce que Macky Sall moomul réew mi mais bu leen subir pression du menace du xaalis léegi dama wax

il est impératif que la vérité soit rétablie au niveau national comme au niveau international il faut que nous situions les responsabilités parce que on n'est pas des pigeons ou des lapins ici ak six ou cinq personnes ont été assassinées ici à Bignona assassinées c'est des assassinats loolu nag mënuñu ko bàyyi mu continuer et c'est pourquoi métti na ñun ñëpp xam nañ ko mais li ci des moom fu may egg egg na fa ba noppi te it diine jàngal nañu ni anam yi bu ko nit génnee àdduna nañu jàpp ni martyr la ma nga aljana peut-être ñun ñooy toog fii di ko jooy mais moom fi mu ne nii fi mu nekk soo ko ne woon dellu sil mu ne la doy na sëkk te am nañ ci certitude kon li ci dess moy ñun ñu dess fi ci aduna ñu fexé ba ñu rendre ko justice mom ak kenen ku ñu defoon lool et c'est le message que je voulais lancer euh di rafetlu téwayu leader yépp di ngeen ma may ma remercier leen parce que man ma dëkk fi mënon na ñëw avec une délégation day melni ñom ñëpp ñëw nañu té ñëpp xam nañ ni entre période tabaski bi ak élection yi jub du temps bi gàtt na ils en avaient fait une obligation une obligation qu'il faut que ñu ñëw ba Bignona jaale famille dem Ziguinchor jaale famille doog a def un point de presse pour parler aux Sénégalais Que ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen masaw waaye di wax ni bu soobee yàlla suñ ko traité niñ ko war a defee lii am am en Casamance te incha allah dootul am fenn ci Sénégal jërëjëf merci beaucoup.